ñoom la yor di di di féliciter suñu maire. waaw ah. di féliciter suñu maire parce que li mu am. Mm-hmm. Sénégal la ko amel comme il l'a si bien dit. Mm-hmm. te ndamu Sénégal la mais aussi euh, di wax ni euh, nañu gën a góor góorlu rek. ci évaluation yi c'est important parce que mu ngi wax l'évaluation des cent milliards mais mm. de la ville de Dakar parce que def nañ ko budget cinquante quatre cinquante six milliards aussi par an donc aussi nañuy dañuy taamu di évaluer xool alal ji fan la dugg parce que la gestion de l'État aussi il la politique décentralisée il l'État mm. central il l'État déconcentré donc euh, fu ñuy laaj évaluation fii rek nañ ko laaj fële donc on n'a qu'à évaluer les la politique publique muy État muy municipalité il faut ñu tàmm di ko évaluer parce que dañuy jël budget ñii ba léegi seen seen maire bi fàtte guñ ko maire maire Dakar rëcc na leen. non non non je parle pas de ça. non parce que yéen ba léegi a ngi teg seen non non da nga wax da nga Dakar rëcc na leen dootu leen ci jot. ki ñuy évaluer fii lañ koy fekk. Ah. non non non c'est que je ne parle pas de de Dakar ah. personnellement. Ah, nga bëgg a tudd yi ñu dénk maire Dakar agriculture dañ fay jox cent milliards chaque année. pour ay semences. ñu ne dañ ko war a évaluer. donc dañu nattal agriculture cent milliards ak ay ministères ay milliards ñu war leen évaluer fan la ñu dugal alal bi ni ñuy nattal li nattee ministères yeeg direction général yi noonu la ñuy nattalee les municipalités. Hmm. donc il faut que Sénégal ñu tàmm di def évaluation la politique de l' de la politique publique. Mm-hmm. su nekkee ba pare aussi nañ am na am suivi. mais bien sûr mu am suivi boo xamante ni su nekkee da nga def naka su dul noonu ak foo munti bokk parce que li may wax c' est dans le cadre général. parce que dafa am loo xamante ni dañu waxoon ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Mm-hmm. mooy gaar. Mm-hmm. mooy budget bi ñu lay nattal c' est en fonction du programme bi nga yor. mais on a vu fii Sénégal que muy ministère wala nangam des fois sax budget ministère yi wàññeeku. parce que mais on a vu les municipalités même budget bi la ñuy yor. les directions générales même budget bi la ñu yor. mais kii lan lay wax nii. mais moo yor même budget. mais ville ville de Dakar par exemple sama sama sama maire man sama maire yi à la Médina. waaw même budget la yor. mais attends depuis des années. même budget bi mu ngi évolué. non mu ngi évolué c'est-à-dire xam nga xam nga sooy. évolué ba leen état di jox loolu asaka la rek. non waxuma état de je ne parle pas de ça on a parlé de l'évaluation de la politique publique de l'État bokk ministère rek yooyu yëpp ca la ñu bokk. dañuy natt alal di leen jox yaa ko wax fii léegi ne suñu alal la. 100 hmm. milliards yooyu suñu alal la surtout que secteur bi dañ ko libéraliser sax léegi depuis du temps de Wade. Hmm. mais 100 milliards yooyu suñu adaan alal la nañ ko évaluer nañu xool 100 milliards yooyu fu mu dugg. mais suñuy demander évaluation pour pour le ministère de l' agriculture par rapport à la politique de de agricole mais nañu évaluer ñëpp bu ñu ko yemale rek ci ministère de l' bu ñu nañu évaluer tous les secteurs de la République du Sénégal que muy municipalité que muy direction générale que xool ndax alal ji leen nattaloon ca la ñu waxoon ñu nattal loon ko defal def nañ ko foofu mhm. c'est important mhm. parce que loolu mooy tax suba soo laajee loo loolu ñu defal la ko su nekkee xaalis bañ la jox cent milliards su nekkoon évaluer nañ ko daaw peut-être duñ joxe ren cent milliards dinañ joxe joxe moyen est-ce que yaa ngi fi ma waxee mhm. n'est-ce suñ ko évaluer woon peut-être dinañ joxe moyen wala ju joxe plus. wala résultat yi jur. waral yu palpable maintenant loolu tax ma ne la dans le cadre de la gestion nañu tàmm di évaluer dama ànd ak yow ci loolu mais bu ñu yem rek ci politique agricole bi. nañu dem ci dans toutes les structures de l'État pour ñu mun a permettre. l'évaluation Arame Fall seede naa ko d'accord.